ji loi bee ko yor ko sax kàddu googu loolu dafa dem daal ba mel sax sunu gouvernement si nag moom loolu rek moo nekk seenu catu lammeñ ba tax na sax loolu tamit moom lañ nemmeeku ci événement mars 2021 ñii da leen tëj ñii nag moom dañ leen dakkal ñi nga xam ne ay mars dañ doon def sax rawatina ñi nga xam ne ñooy honorable député bokk ci kujje gi ak i kër ak acteurs sa société ba tax nag gis te tamit njiiti mi daal lu ñuy njaaga sax moom mooy njaag askan nga xam nag ñoo ko jox seen xob ñoom daanaka sax ñoo ko jox daanaka pouvoir yu bëree bëri njiiti mi nag moom moom mi nga xam mooy chef suprême ci parti au pouvoir bi ak nga moo teg wàllum justice teg wàllum kaaraange gi rawatina armée bi daanaka sax lépp moom la daal di tëxañ ci loxom ñu gis sax am na ay poste civil yoo nga xam ne wala sax ci wàllum militaire ak ci wàllum politique moom moo fay ku ko justice nag moom daanaka sax moom xam na ni li nga xam ne kat njariñ lam ko a indil waaye bu fekkee ne kat xel yoo xam ne jot nañ koo fësal ñu ne gis ni daal li nga xam ne kat mooy poids justice bi am xam ne ko xam bu nga xam ne lii kat war na koo jural njariñ li ko firnde mooy dernière décision nga xam ne moo tukkee ci conseil supérieur la magistrature loolee gis ne daal importance bi nga xam ne moom la keneen judiciaire am ak ci magistrat yi a ci gaal di génn kon tamit dafa delluwaat ci ay compétences yi nga xam ne moo delluwaat tamit ci ay candidat war a am wala war a sax daal nangu ñetteelu candidature bi nga xam ne moo ñël njiitu te ñu koy laam-laamee saa su ne lépp daal ci wàllum démocratie dafa delluwaat ci wàllum stabilité ci jàmm ji nga xam ne war na am waaye tamit ñu mën a fexeekat ne yoon war na mën a tëddee njaaxaandaay njiitu ndax ba xam ne lan la ko war a justice mën indil ak lan la ko nar a mën a xañ ba tax na kat xam na ne ëllëg nag moom lu mat a sédd la lu wérti wér mooy woy politique yi bu yaboo kan ñu waajal seen bopp xam ne kat leen xaar lu yomb kii nga xam nag mooy njiitu réew mi moom xam na ne kat lan mooy doole ji ak lan mooy doole loi ak lan mooy doole justice